wallaay àdduna mul solo waaw ah, billaay àdduna amul solo ñoom ñëpp suñu rakk lañ waaw ah, ñoom ñëpp suñu géej waaye xale yëpp suñu rakk lañ juum day am nag mais ñun ñooy am compréhension bi rek waaw ah, ñu xam fu ñuy taxaw bañ leen toppee ci dara waaw àdduna amul solo man dama leen a bëgg barki Seydina Muhammad waaw te ñoom xam nañ ci dara waaw waaw yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla may leen bu muñ waaw milieu boo ci nekkee nag ah, euh, euh, lay fëq day yomb mais chaque jour que jëfee rek mm, ñun ñi nga xam ñoo leen jiitu ci néeg bi ñun ñu am compréhension waaw mm, te ñu bañ leen topp ci dara waaw man dama leen a bëgg te moom moom yi xam na si dara sax sama waay la moom xam na si dara sama doom laa ngi nii daf maa réeroon nag waaye léegi comme gis naa ko alhamdulilah waaw non feeñ na feeñ na. léegi le fait que ngeen jote waaw foofu laa bi nga xamante ne am na sa diggante ak ak ak Mathia mu jaarale ci moom lan moo tax nga nangul ko. waaw avant tout dañuy sant euh, suñuy père Khadim Ndiaye gis nañ ko si ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm euh, mu nekk nit ku baax tamit ah vraiment. man heure bi ma gisante ak moom fiis la may wax xam la ñu waxtaan ka fooree anaam na sax yoon na ay mbër mais lépp dafay rafet sama diggante ak moom kon donc kooku noonu bu ñëwee fii tey ñu daje fi dama koy ñaanal yàlla rek yal na ko yàlla jàppale ci lépp yàlla taxaw ko ci lépp barki Seydina Mohamed waaw euh, maa ngi sant nag maa ngi ñëw ci moom maa ngi ñëw ci moom maa ngi lay sant bu baax Abdoulaye Diop Xaas waaw ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que tamit lii mu def nii dafa rëy yaa ngi ay nit bu ñu xawee am ay réeroo moom du ko neex da ciy dox tànku jàmm xam nga la te du du tey rek la ko mës a def gis naa ko mu def ko defaat ko defaat ko defaat kon donc bu lii amee kon donc dañ koy sant gërëm ko yal na ko yàlla defal jàmm yàlla guddal fanam tànku jàmm yi nga xam ne moom lay dox ci diggante jaam yi nag ñun ñu ko fay buñ ne am nañ fay waxuñu lu am. kon kooku yàlla rek lañ koy bàyyil yal ko yàlla fay xolam ci barke Seydina Mohamed suñu copain man dama ko sax waaw borom monument bi ah? suñu grand bi ah? ah, <laughs> moom daa ñaawa ñaawa ñaaw ba fekk day jël casquette bi xëcc waaw mais moom suñu waay la suñu grand la et eh, grand liiru waaw grand liiroo ngoog ma ñëw daa fay jiwoon nag wér wér daa may nag mais mais nag moom ay ma ci man kii kii moom a yar ba dara doonul dara. yaa ngi dégg oh, léegi wa waaw mu tombeek koor mu yëkkati jox ma ne ma père lii dama ko def rek comme la ma waxoon sàmm sama kàddu ndax suñu père nga mais ne yem ci suñu biir mais man maa mënul denc ku ma defal lu baax ma wax ko mais mu toll ci États-Unis jóg toll lu ne mu waxul li la dëgër ni nit ku baax la. maa ko wax nëbbu ma ko làqu ma ko maa ko wax. ndax saytaane nga dafa yaa nga yaa ma woo nëbbu ma ko làqu ma ko kii moom sama rakk la maa ko yar kii suma rakk la maa ko yar su defee lu su defee lu xam neexu ma damay taxaw wax ko ndax yow bëggoo ma tey bëggoo ma ëllëg sama na waaw waaw merci bëggoo ma bëggoo ma non bala ngaa leer damay wax non dama la voilà waaw foofu maman dañ ciy waxtaan te yàlla tax ah waaw tey euh, ñoom ñaar ñëpp suñu kilifa lañ moom suñu mag la kee sama kilifa la tey li am sama diggante Xaadim Ndiaye c'est très normal mu am parce que gis nga yàlla bu bindee ci doomu aadama lii wërsëgam ci jébi allah kulli yàlla balaa ngay dee di nga ko lekk ci moom tey moom li mu war a lekk ci man tey kii daf ci war a am mbégte yaa ngi xaar xaar xaar maa ngi ñëw maa ngi ñëw. doon Zale ak keneen ak keneen. waaye kii yow bëggu la. waaw mais non dafa ndox moo tax ma bëgg kii yegg na lu mel kii bëggu la barki Serigne Bamba Mbacke billaahi wala. wa taala la dimbali ma bëggoo ko maa ngi wax ku la joxee daf may métti daf may may naqari daf may naqari daf may métti moom loolu waru ko naqari si daf ma war a naqari loolu loolu bëgguma waa déglu dañuy waxtaan non non déedéet déedéet déedéet ñun bu ñu xoolee foofu ah, ñun nee déet bu ñu xoolee foofu ndax bu ñu defee loolu day ñaaw bu ñu xoolee foofu léegi léegi wax jeex na léegi comme liiru wax na lag wax na xaadim wax na léegi yow combat bi léegi garawul amul problème léegi ñoom ñaar ñoo war a bëree liiru ak xaadim Ndiaye xëy na liiru dafa bëggoon comme ñoom ñaar ay adversaire waxoo dëgg c'est pas vrai waxoo dëgg waxoo dëgg waxoo dëgg laa la wax ñaata yoon ngeen deux fois ñaata yoon ngeen dëgg laa ma daan ma deux fois daan ma léegi daan nga ma deux fois daan ma léegi ba ma ba ma ma non am na victoire ba pare barke Sëñ Tuubaa Mbàkke ah. am na victoire barke Rasul lay billahi kii lay bëri seede ko non bi ma téye dafa mel ni sama doom mayel moo ma téye kii daan naa ko ba pare. waaw yow yaa ngi entraîné te man entraîné gu ma yow nee nga yaa ngi entraîné te entraîné wu ma du ma ma. xam nga tey li xaas def ci diggante Mathieu ak magam Lac de Guiers man dama ci ràmm ak rafetlu ndax ñun ñëpp ay jullit lañ xam nga ak Lirou Diane ak la de Guiers. kii sequñu dara su ma rak la. man maa ko mere taxaw wax li tax ma mere ko. man na kan si si sama sa yoon nekku ci. kippeel sa affaire kippeel sa affaire saytaane nga kippeel sa affaire li ngay wax dëgg du dëgg ci yow li ngay wax du dëgg ci yow billaahi wallaahi wa taala ma ñàkk sama ndek sama baay li muy wax du dëgg ci moom ndax lan jox na ko xaalis su ko neexee mu mu wax loolu Lamine c'est parce que kii day bëreeg sama doom muy Siteu te gën a jege gën a yey la dëggeer loolu mu def su xooloon loolu du ko def mais dafa am esprit de dépassement xam ne tey man bu ma yoroon ndam moo diggante ak Siteu laa koy jox mais mu bay yooyu yëpp def esprit de dépassement ba pare may cité sens kon kii xolu jullit la yor yàlla na ko yàlla teral sutural ko te du torox am na ñoo xam xolu kaani lañ yor ak poobar duñ ay jullit xolu kaani ak poobar lañ yor xam nga kii rouge mu ngi nii nii la xol bi mel nag kii gis nga rouge danger toujours foo ko fekk du woote jàmm du def jàmm ah, tey man géejewaay caare jamono billaahi wallaahi ay kilifa sax dañuy am problème ma dox. dëgg. tey xaas lii mu def nii déglu ma rek xaas lii mu def nii. su doon loolu la li nga def bàyyi ma ñoon doo ko def. Eh. su doon loolu la li nga def bàyyi ma ñoon doo ko def. lu mu def bàyyi ma ñoon. ah li mu def dina bàyyi ma ñoon xam ngeen ma ñoon am combat mu koy tëppir de lu nekk mu di ko wax pourtant man jël na ma suuf na ma yow amoo fulla barki Serigne Bamba ndax soo amoon fulla la dëgg du ma jox xaas bàyyi la. Eh? billaahi wallaahi la dëgg du ma xaas bàyyi la amoo fulla amoo fayda voilà tamit si ta laa ñaanal bu dóor léegi léegi ma ne ko man la dëggee waaw léegi léegi nag léegi kii ñu kii ñu jàkkaar kan la dafa nag non pardon kii ñu jàkkaar kan la maa ngi ñaan ci darajey màggal ji su fekkee jël naa ko wax ko ci la dëggeer yal yal na ma dóor yal yal na ma dóor ma daanu ci barke Seexul Xadim su fekkee wax naa ko ci dara xam nga su fekkee wax naa ko ci dara Lamine kii du ko jël benn or antenne amul digganteeg yàlla am nga ñàkk san waay dama wax dama ne dama ne su fekkee mas naa ko dañuy waxtaan rek xam nga il faut un peu de respect su fekkee su li nga dëgg la ci am nga fulla am nga fay la ni ma def bàyyi ma ñoon ngay attaqué la de barki rasulilah. waaw ma moo tax wax ma déglu ma déglu ma déglu ma mag du nar mag day wax dëgg. bàyyi sa far gi di bàyyi ki ngay def mag day wax dëgg. waaw d'accord mag day wax dëgg. yow mag muy nar nga dama ne dama ne gis nga boo gisee nit yàlla di ko teral. da boo gisee nit boo gisee nit yàlla di ko teral boo gisee yàlla di yàlla di teral nit. xam nga yàlla di teral nit. waa déglu ma bu nekkee dafa omeri te yow yaa omeri yow yaa omeri ba yàqu. moom li toog ci njëgënaay sànq. xam nga nag xam nga tey ji waa déglu ma rek xam nga tey ji yëpp ay taaf la xam nga moom mii géwél la. ginnaaw waaw merci jërëjëf. tey li ñu war a seq. waaw xasuma sax géwél li ñu war a seq. mu ñaan ma ma may man man yow yow dama seq yow li man moom la tëral man. waaw waaw man daan eh, déedéet ëpp naa rek. déedéet déedéet déedéet bul dóor bul dóor bul dóor mais léegi liiru wax leen ci combat bi bi ngeen jëm. allo ay ay ah dégg nga Baye Baye Mandione. mooy woote. waaw Seydina Mandione. delloo ziar maa ngi ci jàmm Baye Mandione waaw bàyyi nag doo jubóo waaw jeex na waaw sëñ bi dalaa woo parce que dafa woo dafa woo sa rak boo xamante ne sa mag sa daf nekk ñu koy jël sëñ laay Diop xaas dugal la ci ligne bi bëgg nga waxtaan ak moom ci jàmm ak salaam muy xaarim Ndiaye dëggal waaw léegi dama bëgg mu jox la ko ngeen nuyoon tey ñaar ngeen waxtaan xaarim waa waa champion. mais maa ngi lay dolli ziar champion na nga def ak coono yi. lépp jàmm rek. baal naa la ba yow ameloo kenn naax amul benn problème yow naa Limaamu lañ la tuddee man ñu tuddee ñu tuddee ma Xaadimu Rasuul xam nga àdduna gis nga àdduna loo fi def rek ak loo fi wax rek ak loo fi def rek sa bopp nga ko def mais ñun ñoo bokk suñu caaro yi nga nekk suma rakk jàmm laa la yéene su fekkee yéenoo ma la jàmm waxuma sama njaboot mais yàlla na këpp ci man te yow it ku ma mës jox cër nga respecté respecté ma maa ngi sant rek Ablaye Diop Xaas ndax euh, tey la de guerre tey Ablaye Diop Xaas tey nii mu def ak ak man ak yow am na ñu dëkk caaro yi waroon ko dox sax te doxuñu ko tey nii mu def ak yow noonu la def ak la de ak Mathieu waaw di res di gërëm la de Guiers ci esprit de dépassement am ak man sama esprit de dépassement yoon man jàmm rek laa la yéene man aw ma lu dul caaro yi dama ne woon su ma dee man dama ne su ma dee sax bu ñu ma yóbbu Tuubaa nañ ma suul caaro yi ndax bëgg gu ma bëgg caaro yi te yow njoon xam nga ci dara sax yow te yéen xam ngeen ni ku leen laal laal ma mais nag seytaane waxul dëgg mais yàqanam xel man su fekkee jàppal naa la dara rek lu ma ñaan ci màggal gi yàlla na ko mag li laan mën ngaa mag sa bàyyi mën ngaa mag keneen mais mënoo mag sa mag dëgg la sama mag nga mhm. àdduna du ko yàgg boo mag la ci dëgg la njoon mhm. dañu day jur leen xeetu Seydina Muhammad lan mhm. tey sëñ Tuuba lépp lu moom ci àdduna jéggal moo ko may jéggale amul luñ ko tegul ci ay nattu amul lu ko tubaab bi tegul ñu yóbbu ko fu ne pour jéem kaa toroxal dëgg la ba mu ñu la wax jéggal naa ñëpp ñëw leen santale ma yàlla tey loolu jéggal googu def nag moo xam may tey lii mu am tey ji mhm. mhm. te ñun dañu te mhm. a jéggalante la man ma fay tamit amoo droit baal ma waxal man sa rakk ma lay baal wax donc amul benn problème jé waaw waaw jéggal naa la ci xol bu sedd guy xoola <laughs> waaw Ablaye moom dafa baax rek wax dëgg yàlla ndax lii muy def nii lii muy def nii rek ci réew mi yàlla bu ko fay lii rek mën naa bañ a tee jaamu yàlla ndax lii rek jaamu yàlla la ndax la dëgg dafa nekk ci komba man mi ma nekk ci komba man mi ma nekk ci combat tey ñu bàyyi lépp ku ci nekk ñëw Ablaye Diop Khass fexe yéen ngeen nekk benn pour doon benn doon ay jullit Ablaye Diop Khass tey yàlla na la yàlla fay taxawaayu Serigne Touba dëgg nga taxaw ndax lii caaro yi gëm a dëkk am na ñu ko fa mënoon te defuñu ko. géejawaay gën Lac de Guiers mii dëkk ak macce am na ñu ko fa mënoon te defuñu ko yow nga def ko kon Ablaye Diop Xaas yal na la yàlla fay yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla taxaw njoon man jàppaluma la dara sama rakk nga te toujours sama rakk ngay doon te màggal gii rek ñaanal naa la parce que sëñ Tuubaa Mbàkke waaw jërëjëf. njoon kontaan nañ. njoon njoon bëgg nañ a Ah, lu baax rek dafa xew Ndiol kontaan nañ ci yow. jàkkaarloo day day jàkkaarloo day jàkkaarloo. Ndiol bu loo xam moom bëgguma bëgguma léegi la ko wax la dëgër ne man bëgguma la dëgër bu loo xam moom liiru jaan bu loo xam moom liiru jaan def face lay ziar Ndiol. <laughs> waa grand champion maa lay ziar. yow da baax. yow amoo benn problème yow doo wax ci suuf di wax ci kaw yow ku baax nga yàlla na la yàlla defal jàmm yow gën a champion xam nga man dama nekk nit koo xamante ni non sama xol sedd na ci mais dama bëgg ñuy waxante dëgg xul xaqamuloo ko aramuran bis bis da ngay ñëw da ngay layoo sa ndeyjoor lu ñu kaf kaf kaf na xam ni moom dafa yorum njaboot man ma yorum njaboot. yow mi yor nga njaboot déglu ma rek déglu ma dañuy waa déglu ma rek déglu ma rek déglu ma bi jaaw kaw bi jaaw suuf bi jaaw naq bi jaaw ginnaaw te doo wax dëgg. xam nga li may giñ màggal gi xam nga ni man lu ma am Touba ma ko gën a. garde nga fa nekkee woon màggal taxulaa jóg. garde fa nekkul sécurité. bu mu doon garde ñu tudd ñu ñu mel ñu tuddee la xaadim rasuulu nga dem ba Touba di dem naan sécurité. yow dimbali ma nga am liggéey la Lamine non Lamine Lamine Lamine Lamine màggal Lamine Lamine ñu toll ni ñu tuddee ko xaadim rasuul ñu toll ni ñu tuddee la xaadim rasuul gémmiñ gu waxul dëgg wax fen gis nga la de mi du question lim taxaw de mais kii Lac de mii la doon topp ikiri waalo la bokk mais Lac de Guiers xoolul yooyu yëpp dafa bàyyi yëpp jëlee la ko nañu waxante dëgg nag te yàlla tax waaw ñu xoolante ci bët waxante dëgg te yàlla tax man li may wax bu dul dëgg li ma jëlee Touba yàlla na doon ndoxum kese ku jàkkaarloog sëñ Muntaxa jàkkaarloog sëñ Bass Abdou Khader déglu ma jàkkaarloog sëñ Muntaxa jàkkaarloog sëñ Bass Abdou Khader ah jàkkaarloog sëñ Abdoul Karam ñaan sama soxla ci sama bopp ak sama njaboot su fekkee ne li wax ni jël naa ko wax ci la de Guiers ne ko génnal wa attaqué ko sama njaboot yàlla bu ñu jariñ wallaahi wallaahi wataalaa fekk li muy wut ci màggal ci yàlla bu ma ko am moo tax wax ma ko léegi léegi loolu jeex na loolu jeex na loolu loolu jeex na xool waaw mais loolu jeex na liiru liiru wuy ma léegi loolu loolu waaw waaw loolu jeex na waaw loolu jeex na léegi nan wax waaw nan wax ci làmb ji nan wax ci làmb ji nan wax ci làmb ji seen combat janvier la moom nee na mu ngi ci wàccaay waaw man pare gu ma man entré gu ma sax billaahi wallaahi su doon suba sax pare na bàyyi nga ma ne la yow dimbale ma fan laa perte ñaar yoon fan laa perte ñaar yoon bet nga ne fan nga ma dóore ba mu damm Demba Diop yow yaa ñi ma yàlla sama baaram damoon yaar ngeen da ko miir bi <laughs> yàlla yàlla la ci vrai comédien nga yow wax xam nga man lu ma metti si moom dafa liggéey avenir am ba mu rafet mu mujjee ko comédien mais naa man yàlla daf maa teral. Oh, c'est pas vrai su la yàlla teral sa wax ju bëri ji tey ak sa ju ñaaw ji doo ko wax waa lambu. waaw d'accord lambu lu mel ni xamee man maa koy faj. man su bis baa si digg géej naa ko duma ba mu bëgg a réglé ñaawem bu rëy bi. a nee na daan na la dëgër waxul dëgg. ah non non ah, bi benn bi àggul. dimbali maa nga foon oh, du dëgg maa nga foon benn yow xool dimbali ma benn yoon ko daan nee na nee na tudd na fi Baboy te Baboy sa xarit la. Baboy waaw nga farul fenn kan. moom dafa waroon écrire alpulaar la moom moom day làqu rek. yow làqu la rek kooku moom ngeen da ngeen nekk ba boo taxawee nga wax ko loolu mu duma la. xam nga gis nga gis nga nag. waaw suñu bëree ñaar gis nga nag gis nga al toppe yi ñooy yàq écrit yi mooy ñan al toppe yi rek laa wax ñooy yàq écrit ñooy fekk Balla Gaye ak Lac de Guiers war a bokk ndey ak bay téye Frambo dara géejawaay ay jamono gis nga Lac de Guiers boot na Balla Gaye sama kanam ma gis Demba Diop mu rafet trop ñëpp di yuuxu waaw ñëpp di gis ko mhm. pourquoi loolu amatul waxkatu ñi yoo xamante ni duñ wax dëgg ànd ak seen monument bu damm boo xamante day fent nar di wax du di féewale di jaxase géejawaay yow yaa ma dàq a fen premier yow yaa ma dàq a fen mais nag combat bi moom man du ma fi daane du ma fii parapac man ñoom ñëpp samay rakk ñoom la xamoon 2003 nag ci Seras fekk fi la ma fekk waaye man la xamoon 2003 la xamoon 2003 man faalew yow saytaane nga la xamoon 2003 ci Seras fi la ma fekk dama koy wax de xoolal mënoo toj caaroy toj ku jooju jaxase géej waaye mënoo toj man suma xam nga ba jaxase bi bi mu pour la commencé fi mu taxee di ma naa ma la dëggee jox na ma xaalis bu bari ci suukar koor la dëgg woo déedéet daf ma doon bëgg a jax seg la de ba ma taxaw wax ko moo nga ma ne ko noppal na la yaa xam waaw maa tey lan laa ko wax lan ko wax lan laa ko wax wax ma lan laa ko wax lan laa ko lan laa ko wax yow xanaa te xolam bu rafet yaa ngi koy doog xam tey waaw combat xam tey yow laa xolam bu rafet yaa ngi koy doog xam tey xanaa xolam bu rafet léegi làmb ji yow loo ci wax mag mu ñàkk euh, fayda la bi jaaw kaw bi jaaw suuf bi jaaw naq mm-hmm. bi jaaw ginnaaw janvier ngeen war a bëri janvier ngeen war a bëri janvier moom dégg nga li mu wax miin naa bis boobu trop baabooy defe naa janvier lañ bëri woon ca combat douane ba. dama ko dama ko dóor ba dem dem xam nga dama ko dóor. xam nga tey ji kii lim su fekkoon ne damay nekk ci réseaux yi di saaga. ak wax wax ju ñaaw. di saaga ndax chaque jour nga ko ay nit chaque jour si nga dëkk. mag mu xamadi nga. yaru woo ko wax yaru woo diglu ko wax ci la janvier. diglu la boo xamante ni damay ñaanal Ablaye Diop xaalis mi tëgg combat bi di nuyu waa CNG Bira Sène di ñaanal di ñaanal axlu làmb yëpp mm-hmm. yàlla defal ñu jàmm di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke mi waral bés bi yi nga xamante ci lañ jóge Mbàkke balay sa yàlla na yàlla guddal sa fan nga dudd 111 ans yu commencé tey maa ngi la koy ñaanal di nuyu sëñ Bass Abdou Khader suñu bunt ci sëñ Touba muy sëñ Modou Abi Mbàkke mm-hmm. di ko nuyu bu baax di nuyu samay frère di nuyu bas sëñ Bass Abdou Khader di ko nuyu bu baax di nuyu waa Darou Rahman njabootu suñu Abdoulahi borom dër bi yëpp di nuyu suñu kilifa muy Ousseynou Ndiaye ak Abdou Ndiaye ak Ablaye Ndiaye di nuyu Askia ak Maître El Hadj Diouf di nuyu Askia ah, ak jabaram ngoy ngoy waaw déglu ma rek di ko nuyu bu baax man man man man li nga wax waaw dama Lamine Lamine woyaan moo la fa yóbbu wallaahi wallaahi tallaahi Serigne Bamba Mbacke woyaan moo la fi yóbbu waaw Lamine il faut ñu déglu waaw dégluwuma la man du ma la déglu yow xam nga tey man da ngay nar waaw d'accord jërëjëf muy nar nga moo tax du ma la déglu jërëjëf jërëjëf xam nga tey tey jërëjëf xam nga tey Ablaye Diop xaas mi dama koy seede ci Mbaye Diop mii man waxuma de Askia moo jël micro bi biñ dugg see avant ñuy dugg si mu ne maître yow dinaa la wax li ma bokk ak xaadim tey ne sama deret la sama bàyyee ko yar waa kër sëñ Abdoulahi yaa ngi dégg ak Goy Fall déglu ma rek ak ak nee sax nee na ma sax xaadim sang bi sax boo xafee léegi mu ñëw fi muy Ablaye Diop xaas wax ci moom lu rafet yaa ngi taxaw mbay Diop kon Askia dañ ko war a ñaanal yàlla ñiy taxaw di xalab di wax wax ju wax ak wax ju bon wax ju bon dëkk est-ce a la est a baax bi nag combat bi nag waaw combat bi maa bu woo di ndax nee naa ko waa déglu ma rek waa déglu ma ma rek askia waa déglu ma yéen ay déglu yéen ay déglu non yéen ay bi doy na dama ñëw mu mu yëkkati un million jox non du dong ñëpp loko koy defal un million yi nag jeex na koy defal dégg eh, eh, naa un million jeex waaw ah. léegi xaas kan faral ci ah, xaas ma lay faral ndax xaas du bañ sëñ Touba xaas du bañ sëñ Touba ah, xaas du bañ sëñ Touba Xaadimu Rasuul seede yàlla xaas gis nga xaas ma xamal la benn affaire ci xaas lu ma rek dama lay xamal benn affaire xaas yow wax yow wax li wax boobu la yaa ngi xaas di wax xaas wax ju ñaaw naan gor waaw wax na ko ci suuf toog na ci plateau télé yekk xaas lu mel ni xamee maa ko wax jarul cuuc wax ju bon wax ju bon rek la moo taxaw wal fajiri moo xuloo paanu mbari la loo jox xëpp ci moo toog wal fajiri xaasa ngi nii xaas seetaan na ko mu yekk lu mel ni xamee mi ngi nii ñàkk jom ba bëgg a dee soo jógee tey waaw wax na dëgg man maa taxaw ndax euh, lenn xaas li leen rek laa ko wax dama ne dama amoon sama doom am yéene xaas ñëw ci bés ba mu am empêchement loolu laa ne xaas day mere naa ko ndax daa waroon ñëw sama bés. loolu rek wax xaas ngi may dégg. te loolu après soxnaam si déglu ma rek soxnaam si bi ma ñëwee. soxnaam si bi ma ñëwee sumbulu mi may dégg sumbulu mu baax mi eh. ñëw naa toog mu wax ko ci sama kanam. Eh. waxaat empêchement yi xaas am. ñu wax ko ba mu féete boor même moo wóor ne man damaa xaas xaas. te billahi loolu laa wax waaw xam naa ne sax sumbul moom sumbul moom ak buri bàccali moom nangul naa leen ni. moom la ñuy faral man xam man xam naa lépp. ndax lan naa sax ñu naan ceeb yi regroupement yi ñoom ñooy financé ceeb yi. waaye nag bu yeboo bu fekkee ñoom nañ ut bekk suukar. ndax kii bu ma ko daanut. waaw barki Serigne Fallou Mbacke yàlla ma yàlla soppi mbott damaa bëgg nga dóor ma waaw dama bëgg nga dóor mënoo ko dóor ma man damaa bëgg nga dóor ma man damaa bëgg nga dóor ma. mais mais Lamine Lamine Lamine dama bëgg nag ñu ñun ñu am ay hygiène de vie. yow yaa am hygiène de vie yow. bu ñuy ñëwati ci ay signature yu mel nii di jàkkaarloo. waaw nañuy borosu kii lépp na borosu. mu ngi may bëgg a rey xetu gémmiñ barke Sëñ Tuubaa Mbàkke yow xanaa jéemoo États-Unis boros ah waaye tamit hygiène de vie dafa baax ci nit quoi man dama yaakaar ni sax salle de bain dafa am fii mais li dafa ñaaw trop barke Sëñ Tuubaa Mbàkke ah ah Lamine li may li may daw nii yëpp li may baax may daw yëpp xet gi lay daw. ah yaa ne xuloo ba am bari. sori sori eh eh bul fomp bul fomp looy fomp. maa ne xuloo paanu mbali. santal yàlla de ba nga nekkee boor bële. waaw santal yàlla ba nga nekkee boor bi. waaye man su ma amee émission bi yow xam nga su ma amul émission bi yow xam nga. waaw ah, loolu mais moom nga jàkkaarloo waaw dama. man ak yow. waaw waxal ne. waa léegi Mbaye Diop non Mbaye Diop dama lay man duma ko tontu Mbaye Diop man su ma amee exemple fii xam nga su ma amul exemple fii xam nga kii waaw xuloo paanu ma d'accord man am problème lu ko neex na lu ko neex na wax sama mbokki sama géej yëpp sama rek maa ngi lay woo Baye Mandione Baye maa ngi lay woo Issa Pouye maa ngi lay woo Xarim Ndiaye numéro 2 Pape Ahmed Deme xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ndax lamb yi ndax lamb ji day xaaral ndax lamb ji ndax lamb ji day lamb yoo xamante ni ñor nañu trop. li ah, na la baal ma nag su ngeen su ngeen gisee ma def lii. boo su ma dee xoolal su ngeen gisee ma def lii xam ngeen du lu ma neex. mais xet gi ñëw fii jugee jugee géejawaay man dama jàpp di bëri géejawaay noo gis nga la déggee rek ne solu naaj ma ceege ne mais déedéet borosu dafa baax ci nit. ndax mooy def tax sa kaaraange ndax li ngay lekk boo xëyee da nga war a borosu. patu mu dañ. mais liiru maa ngi lay conseil waaw yow eh, eh. <laughs> ma man su ma doon xet gi mbay jóob mbay jóob dee. su ma doon wax mbay Diop de xam nga mais li ma gën a metti liiru dama bëgg mu wax tey kuy sëriñam ci Touba wasila waaw gis nga gis nga Lamine ma xamal la benn affaire bala ma am ci loolu nan waxante dëgg Mbaye Diop maa ngi taxaw mi ngi taxaw ñu ñaar kan moo ci gën a am <laughs> erreur de vie xool Mbaye Diop ba ma fi duggee nga ne loo ma njëkk wax sa parfum neex na yow loo ma njëkk wax sa parfum bi neex na yow sa parfum bi neex moom fu luy xeeñ waaw non waaw d'accord man dañu ma loolu li muy waxal yëpp xam nga yow kii xam nga wax xam nga benn affaire da ngay woote maa ngi woote man tamit boobu léegi mi ngi rattat di wax rek Lamine voilà xam nga Lamine man amul lu dul Géejawaay man Géejawaay laay tiitaroo barke Cheikh Ahmadou Bamba billahi wala waaw daa waaw dañuy waxtaan pire waaw Lamine dañuy wax dëgg la affaire moo am mi ngi wax ñam la dëggal millions yu bëri na dugg na boo yàgg yoon ay kat kat ñam Balla booy ñam mu taxaw ne maay maay seen mag million bu njëkk ba ku ne xam na ni Waalo la bokk mook la dëgër mais ñoo bokk écurie yow waxoon nga mu tudd écurie Waalo waxoon nga ma Touba di nga ko wax turam dëgg voilà tudd tudd tudd tudd tudd liir mën naa la wax tur yaayam bul wax yaayam wax moom. non dama xam ne sëñ bi kii. Ah. ñoom si askia nee nañ ma. Ah. bul wax ah. tur yi tànk joxuñu la ci ndigal. askia moo la wax loolu. waaw askia moo la wax loolu. mbay jooba ngi taxaw dama am seede. askia vidéo yaa ngi ni vidéo yaa ngi nii. léegi nag euh, léegi nag déglu ma askia daf ci war a jàpp. waaw da may déglu askia. waaw vraiment vraiment wax ju bëri ji. yow ñu ñaar kan moo ci gën nuru gémé ko am gémé gu xeeñ xool ko xool ko yaay yow li xeeñ ci yow lay jóge koy woole liy xeeñ ci moom lay jógee di delluwaat ci moom. léegi xam nga Lamine. mbay luy problème ah? la. ak boppam bu ndaw bi non mbay Diop moom saytaane la ak boppam bu ndaw bi. da ngaa am journaliste maa am journaliste. li ma waxante dëgg Lamine mooy sa doomu ndey kii mooy sama doomu ndey fu mu mbay Diop nekk sa doomu ndey. yow taxawoo ngeen mu dafa ne dafa nul ko fer. eh te ngeen di yéen a honnête ñette a honnête. ngeen mel ni ay jigéen di honnête. mais keroog bi ngay dàq bi ngay dàq nga lu dul dégg lu dul non wuy ma lu dul dégg ah. dégg ko gën ah. dañu jóge almadi euh, mamel biñ ay deux heures ah. ñu ñëw trois heures ñu ñëw ba booru kër Cheikh Amar ci ci ci ci almadi bi ñu gis ay gars yor Tmax ponkal waaw génne tol ni màcce génne ay ay 37 boobu sax man maa ngi jàppanteeki nelaw ay 37 lañ génne dàq gel bi gel bi wàcc otom di daw ak ponkal mi mu àndaloon ponkal moom tol na ne Lac de Guiers Lac sax laa ko tegoon xam nga waa ji gàd daw waxit Lamine mu jëkk ne ma ay xarit ay agresseur lañ xam nga niñ niñ non niñ taxawee noonu rek jël bi daw rek ñëw ubbi oto bi rek yéeg déglu ma rek am ah, jël bi ubbi oto bi rek oto bi rek yéeg waaw maa maa maa kii ak beneen ponkal mi ñu dàqi ñu dàqi borom teem ak si ñu dem ba ci corniche su TFM bi fekk maa ngi soloon neer moo ni ko futteet oh. Lamine nag may dégg de ah. ma teg ko ci oto bi ah. ut sama yat bu baax koroog la ma yalla koroog yàlla naroon de koroog la ma yàlla naroon de waa déglu ma déglu ma rek déglu ma may gën la ma yàlla ma doon may succès ndax gars yi dinaa leen song ak i jaasi ñu dóor dara du dagg ma jàpp leen yeew leen tee seen i teem ak Lamine filmé ko ma heureusement waaw non filmé tax waloon a jóg moom dafa tiit ba fàtte fa téem eh, teg eh, si <laughs> yow yow yet bi muy doxaan ndaw si moom yet bi mu yor sax maa ko ko jox voilà ba pare muy doxaan ndaw si moom ñibee mu naa ma risque bu rëy nga ma def loo parce que lii mënoon nañu cee jël sama bakkan mën naa la waaw waaw gis nga mag mooy. dama ne la waaye dimbali ma nga mag mooy nar moo gën a bon. bul ma man def ci làmb dara. su ma demee ba sama yaram di bënn nekkatuma xaadim rasul mm. nañu waxante dëgg. barki Serigne Fallou Mbacke bu la neexee. suba ngeen ñëw sa déggalu ma la benn yoon laa ma sa dem benn yoon laa ma benn yaa ngi dégg dé Lamine Lamine dégg naa ci nag dégg naa ci lu ne nag ndaw soosu dégg naa ci lu ne ndaw si ma doon dimbale noonu ndax boroomi teranga la fu baax la bokk xam nga la déggeer ndaw soosu ma doon dimbale dégg naa yàqkatu dee neen dama ko doon jël ci suuf xam nga waaw ñu bëri dara jël ko sa dara koo mayoon caaro yi kenn ba muy ñëw de mook jamee la mi a àndoon Eh, ak macca mii diriyànke bu baax macca yàllaa la tiim ci combat nga jëm billaahi mu eh. oo ndaw si na ndaw si naa ko man damaa bëgg damaa bëgg gis Lac de Guiers bëgg gis Balla Gaye mu ne ko bu la neexee sax maa la ko indil eh. moo ko wax nag lépp enregistré nañ ko jërëjëf ah, mag day wax dëgg Lamine jërëjëf Serigne Touba jaram maam Cheikh Rahima Fall Babour Mouridina donc ziar ñëpp ci màggal gi ñu jógee di am mbégte di kontaan ci màggal gi ñu jógee lu ñu fa ñaan nag yàlla na ko yàlla nangu ñi ci ñi ci ñàkk seen bakkan ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na la yàlla xaare àjjana vraiment màggal gi neex na gis nga a Muntaxa waxal gaay Sénégal ma ne yow bokkuñu ma man taalibe laa man màggal moo ma yóbbul sécurité yóbbu ma waaw waaw da nga may da nga may déglu da ngay fayu da ngay déglu Lamine di gërëm ñëpp di sant waa géej Géejawaay gépp moo Ndiaye mi ngi koy wax léegi naan ko ay otas yi mu kooku sunu xarit moo Ndiaye directeur série Madeleine moo tax nga ñëw ca ngénte la ndànk waaw oh la mu jëndal ñu ay mbasin rafet boole ñoo kan Baara Fall. Baara Fall Baara Fall ne ko def Tafa Fall mu jox leen ay ñaw yu rafet duñ ko sol. Baara Couture noonu la ko defee woon sa ngénte. Ah. defee ko sama ngénte loolu nag sant yàlla dañ koy ñaanal moo njaay. da cee war a bëgg a bëgg ndax yow tey man ma boo bëggoo ndax soo ci bëggoon dox yow tey soo xamee moo njaay yàlla ak mën a tax. ah mooy Ndiaye ñëpp la asamaan la waaw d' accord waaye soo ko xamee laa ma ne waaw waaw waaye man maa tax mu xam ko kon nag soo defee def bu rafet da nga ko war a rafetal waaye tax waroo taxaw di xas naan ay xos otas yow jom amoo fulla yow ci koo xam ku baax man maa la boole moom <laughs> xam lu ma Lamine di gërëm di woo ñëpp ci combat bi moo Ndiaye directeur Serigne Madeleine sama xarit ñoom Mafal Mor Ndiaye ñoom Afia waa Canal Grand Sam hmm, consul ñoom ñëpp Euh, euh, euh, ak kii ñoom kii Bo Diop Racine Boos ñoom Rama ak Mati sama jigéen ba ci Amérique Mati maa ngi koy ziar bu ziar ñëpp Malick Fall naar bi maa ngi koy ziar di ko woo sama combat Malick Fall ah, ñoom sàngara Mbay ah, ah, ah kii Xadiloo ah Xadiloo sama jigéen maa ngi koy woo ak Matar Diop suba teel sama xarit sama waa ji. vraiment Ndiago mu Wally Seck waaw waaw suba teel. Ndiago Woro xam déglu ma rek. yow mën a bëgg waali kàlla dimbali ñaari ñu am waaw non damay déglu non non man dañu man ak yow bokk ñu ndax yow mag mu saytaane nga magu naa fekk la bëgg waaw dama la magu naa fekk nga fekk la bëgg moom lay expliqué man yow magu naa fekk nga saytaane nga dafay yaa nga yow mi yaay rambaaj oh. mag ñàkk fayda boo gënee yow ay dimbali ma sëlër yaa ñàkk fayda ah, xam la su taxee fi Matar Diop suma teel su defee lu baax Ndiago Euro lañ wax Ndiago Euro lañ wax Ndiago Euro day def lu baax capitaine waaw d'accord waaye Matar Diop suma teel am naa droit tag ko ndax mu tax ay ja sant ko kooku baax la waaw merci comprendre nga moom tey su bëggee jaxase gis na genre mel ñooy saytaane yi di jaxase ay diggante Pape Diouf ak Wally Seck genre saytaan Pape Diouf magu Wally sek la comprendre ñoo bokk soo bis dañuy liggéey. comprendre waaw déglu ma rek waaw dama lay wax rek. affaire saytaane yi mag du ko def xool ko ci mag yow rek xool ko ci mag yow ñu ngi nii bokk ñoo bokk. non non affaire saytaane mag du ko def. boo ma waxee saytaane ma duma la saytaane nga boo ma waxee saytaane ma duma la saytaane nga saytaane nga boo ma waxee saytaane ma duma la parce que sëñ Tomba saytaane nga saytaane nga oh saytaane nga. dégg nga li ma la wax dafa def lu baax Lamine ku def lu baax ñu wax kooku ku baax la euh, di gërëm Mbaye Diop sama waa ji borom Italie ak France ak Italie ma Mansour kase kenn du Mansour Kassé sama doomu nday sama xarit Mansour Kassé borom américain maa ngi koy gërëm baax di ko woo ci combat bi Mbaye Diop maa ngi koy woo ci combat bi baax borom italien ak Amérique ak Touba ah euh, Guèye Ndiaye sama rak sama xarit borom feer yi maa ngi koy woo ci combat bi waaw ñooñu samay nit lan samay nitu bopp lan comprendre di woo sama patron suma xarit ñoom Modou Dieye Sène ñoom Andaw Ndiaye Pam Pam Fall président maa ngi lay woo président waaw a bàyyi affaire naaf waaw ci commencement bi laa ko tudd jërë mu ne Pape Fall non a bàyyi affaire saytaane yi ngay def xanaa mën a bàyyi doora doora moom xoolal affaire bi naa fekk gis nga yow saytaane. non non lu ma bañ a. mais Pape Diouf Fall mooy patron. waaw man Modou Gueye. Mara Mara. Mara Mara mooy wax. Mara dafa ndànk dafa ndànk. Pape lii signe la baal naa ko gisoon nañ ko feneen wuy ma di gërëm waa Géejawaay yëpp sama rakk yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ku ci am combat yàlla may ko ndam comprendre xale yi ñoom ñëpp Géejawaay xale yëpp am nañ combat tubaarikàlla masàllaa Géejawaay ci kaw ci kanam ñun Géejawaay lii lañ xam jàmm lañu xam la paix ndax dafa am ñoo xam ne ay saytaane la am ñoo xam ne ay saytaane lañ comprendre nga fu nu dugg rek la ñuy xaj la dëgër suma rakk la la dëgër suma rakk la man su ma ko yéene lu bon xam na su ma ko yéene lu baax xam na xam li ma la eh. Lamine la Lamine li may wax dafa ma ñor waay. Ah, non dama ne dama ne la dëgër su ma rakk la man su ma ko yéenee lu bon moom xam na su ma ko yéenee lu baax xam na comprendre xañ na nag am na saytaane yoo xam ne ñooy dox Ah, am na saytaane yoo xam ne ñooy nekk ci suuf di jéem a dox Lamine Lamine a ak man waaye Lamine dama Lamine dama bëgg a déglu man Lamine am saytaane yoo xam ne dañoo nekk ci suuf di jéem a jaxase di jéem a jaxase te man lat suma rak la sama frère moom xam na ne jàmm laa ko yéene comprendre kii saytaane la dafa bëgg a toj caaro toj géej waay mooy mënut a toj géej waay xam la wax Lamine maa ngi leen gërëm ñoom ñëpp di ko ñaanal combat bi mu ñoom yàlla yàlla ma Lamine Lamine da may déglu waay Lamine li may wax daf maa ñor Lamine. mais nag ah, ah, ah. liiru li ngeen fi wax yëpp làmb leen boole. waaw da ngay déglu xool làmb boole ndax saytaane nga yow dimbali ma Lamine déggal ma parce que di gërëm waa Géejawaay gépp moom la déggee rek. Balla Gaye ak Sa Thiès ak Marley Marley suma rakk ji comprendre nga maa ngi koy joué bu wér di ko ñaanal combat bi mu jëm tamit yàlla may ko ndam lu sedd guy muy Marley a nga ah, ah ba ci lan gën a jege gën a yey waaw waaw sama rakk la c'est mon frère may guy yàlla ko yàlla may ndam lu sedd guy <laughs> may guy yow saytaane nga yàlla ko tarki naa bu ndaw bi ah sama rakk bu ñuul bi ma nga ca sita ñuy liggéey liggéey ma ne di oo rek rek di oo Amet Dem sama rakk ji Amet jarbaat caat eh, caat yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi mu jëm caat caat daaw dafal caat ah, daaw dafal sama jarbaat sama yàlla na yàlla may ndam ñoom macca xale yëpp yàlla na yàlla may ne képp ku am combat bi géejëw yàlla na yàlla may ak ñoom Jackson xale yi am combat yëpp su ma limee damay juum comprendre xale yi am combat bi géej way ñëpp ñu amagul combat yàlla na leen yàlla may ndam waaw Alioune Seye 2 combat bi mu jëm tamit yàlla na ko yàlla may ndam ah, comprendre di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ni yàlla defal jàmm biir way Kor Ndiak sama waa Kor Ndiak maa ngi koy bu weer Kor Ndiak ak ñoom Aziz sama waay la ku baax la Kor Ndiak sama avocat bi tamit Ndiak Ba maître Ndiak Ba avocat bu mag bi ah, maître Ba ay maître Ndiak Ba ak dan dossier bu moom bu maître Ndiak Ba jërëjëf. taane la jaxase la man saytaan maa ngi nuyu Mafal ca Amérique sama waaj ji ak ñoom Boy Billy ñoom ñëpp waa Amérique yëpp kontaan nañu ay ca Mara waaw comme li ñu wax rek xam nga di profité di nuyu ñi fi daje di wax combat bi combat la boo xam ni comme niñ ko ñi ñëpp yëgee nii nii rek da ngay xool di ree n'est-ce di nuyu li ci jiitu nag man li fi am moo ma dàqal euh, diggante Lac ak Macha Macha ak Lac ay doomu ndey lañ ay doomu pend naar lañ koy waxee foo leen ma a gis ñooy ànd ndaamba ak njool la seen ànd ci soo lak nee na ko namoon naa la te pourtant bi ma ko woowee téléphone loolu la ma ñu ko wax ni ma damaa nam damaa nam moo lay wan ni nit ñi nañ bàyyi nit ñi rek ànd buñ bàyyi nit ñi ànd rek ñëpp nekk ci jàmm liiru it macha allah comme ni mu taxawalee géejawaay moom it yu mel nii bu koy seetaan moom la fa yàlla teg mooy monument ba lu xewit na jël kiyam rabba rabba rabba ba mu ni tag sëñ xaadim moom la yàlla teg caaro yi lu mën a xew moom it na dajale waa caaro yi yëpp parce que ñoom la fi yàlla teg aussi nag te mu neex mu naqari ñooy magu mbëri loolu moom yàlla def na ko ba pare te ñëpp leen rus kon nag nañ kontine defee noonu seen combat nag li ci metti mooy euh, comme euh, buri far na ak sumbulu comme buri far na ak sumbulu xëj na. buri ak sumbulu fun far. ah déet waaw waaw déggoo déggoo sëñ xaarim nangu na léegi yow léegi yow. léegi yow après loolu beneen kii la boo xam ne sumbul dina toog euh, liiru dina toog. ok léegi amul problème ak borom drapeau bi aussi quoi. Balla Gaye borom drapeau bi moom nee na léegi amul problème over nee na day neutre moom. loolu de non moom mënu ko loolu moom nag moom loolu moom mënu ko xaadim bul nangu loolu de loolu. xaadim lan la wax ak yow téléphone mais lu mu wax ak yow ci téléphone bi nee na waaw waaw waaw waaw. ah kon baax na mais kon daal kon daal man man moom dama dama kii rek. lu la lu la lu la ba convaincre Baye Mandione mu jël appel bi wax. nit ñi kenn amul problème man damay jàpp ni wallaay bu ci ñi ne ci diggante yi buñ ci génnee Lamine doo gis kenn coow ak kenn Baye Mandione xol bu rafet la yor Baye Mandione bu ko déggee muy rek nga xam nit gënu ko koo xam ne ndeysaan Baye Mandione mënul nekk mbër parce que wallahi Baye Mandione boo xoolee da nga naan kii du mbër li ma ko wax rek c'est simple sa diggante xaadim mun naa mën ko di bu leen nangu sax yu njàkk parce que lamb lamb la mais am na lu ci jiitu ñun ay jullit lañ waruñu nekk di tongoo nekk di jëm fi lii day jeex te lii du jeex kon lu warut a jeex nag doon leen benn wax dëgg yàlla avant may àggale mun maamul benn problème cheikh bi ci laa ko paas sëñ xaadim sëñ xaadim dégg nga ni mu ko ak yéneen ni mu rafetee loolu rek mooy dañ koy ñaan ni ko moom it ñoom ñëpp ay rakkam lañ moom mooy monument caaro yi ba li mu neex liir mu naqari liir mooy monument caaro yi moom caaro yi kum ni aca day def loolu kon nag sëñ xaadim yow da ngaa njaboot comme ni nga leen woowee ci combat dafay rafet booy sa open press ñoom ñëpp. ñëw te am na koo fàtte woo nag xëy na après xam sa waay moo kii rek ba woowoo ko amul ah, ah, ah, ngi lay ñaanal yal na la yàlla defal jàmm. li ma jaaxal xaadim monsieur déglu ma monsieur le ministre. xaaral xaar combat ku la booleeg ministre bi. dañ kilifa gu mag moom ma boole. ku ministre kilifa gu mag. waaw maa ngi lay ñaanal mu le ministre dama bëgg nag samedi bii di ñëw. waaw ah, ah, mardi bii di ñëw damay dugg dëkk damay voyager. combat bi sax combat la maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale mu le ministre foo nekk fa nekk loo ma joxoñ loolu laay def dénk naa la sama bokk bokk. Eh, léegi léegi léegi liiru euh, tey euh, Mara dafa defal Lamine suñu rakk suñu xarit mu defal ko teraanga Ablaye Diop xaas. montre bi xaalis bu bari lay jar Lamine dana ko dafa rafet rek mu tekki ko jox ko te xam nga loolu taraanga la joo xam ne tourneel nga xool mantre bi dañ koy miite comme ni ni miite oto day am matricule kon taraanga jooju bu ko defalee bu ko defalee Lamine liiru muy sa rakk mel na mel na la ko defal avant boobu oto la ko joxoon oto bi ñëpp gis nañ ko teg seen bët ba pare jour boobu oto bi ñun ñëpp mu sànceel ñu paa bu ñàkk jom bi mu sañsel ñun ñëpp waaw comprendre nga léegi ñu daal di dem te làmb ja mu décoré Lamine oto la ko décoré ca jour làmb jooju muy jamaykee moo ko tudde woon làmb ja su xëy dafaa teel lii ah tubaarikàlla macha allah defaat na lam daa def rek la defati delloo na mbuum ca mboy geeg ñoo ngi koy ñaanal ndax kii ku ko defal sama rakk la lu trop kooku no su ko su dégg musiba am kon de naa ko watal ci ginnaaw <laughs> ay jë mbokk yi kontaan nañu Lamine teraanga ji kontaan na ni ñun tam euh, bu la ko defalee mel na ni ñun ñun ñëpp la ko defal ndax yow suñu rakk nga te nit ku yaru nga yàlla na ci yeneen topp euh, ku yaru moom dara jomb ko. yaram rek am solo waaw nit ku yaru comme ni nga ko waxee yow it nit gënu la te montre yu baax yëpp bokk heure ah. boo xoolee tey ngeen mën a toog yéen ñaar kenn xamul kan moo ci kii bi ku ne jox sa moroom wàcc waay ba ca war dafa rafet waaye nag di gërëm Mathia Pereira moom li tax ma koy gërëm mooy Eh, lu mu jàpp moom su ma ko ne bàyyil mu bàyyi wax dëgg yàlla ma woo ko tey mu bàyyi itteem yëpp ñëw wuy si ma di gërëmit it gaayam yi ñu àndal mm-hmm. macha allah ñoom it yàquñu dara mm-hmm. xam nga xarit dafa jige buñ ko non non waaye bul def li bul def li bul def li waaw waaw gis naa léegi nag xam nga tey bu xaar yi di waxoon loolu ah, bu boobaa ma ca mën nañ ne non non non mais ñoom ñëpp a bëgg lu baax lii loolu dañ ciy kontaan di gërëm it Lac de Guiers 2 aussi parce que champion la moom it yàlla moo ko defal loolu waaw dafa mature ma woo ko moom it mu ne ma lépp lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ñëw lii la réew mi soxla lii la àdduna soxla yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ah ba combat bi am na benn ministre boo xam ne nee na mooy jënd bii lu ngeen soxla moom moo koy def te kër ministre ba. waaw non si dañuy dem kër ministre de face à face moo xaari ah. incha allah loolu du problème jërëjëf jaajëf. ayca bokk Lutte TV Khass TV kontaan na. waaw tëj jox la. mbay mbay ma xamal la benn affaire xaas nañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér waaw Ablaye Sarr sama rak sama xar maa ngi koy ñuuyu ay ñoom booy jum jum ak Ablaye laay ah booy nekk foofu yëpp ak Moussa ah, Moussa magul ah, Magulat Junior Moussa manko ngi koy ziar waaw. Waaka Mbay ci Amérique ah Waaka Mbay moo nekk ci Amérique di nga ma booleeg moom maa ngi nuyu sama yaay ji tamit Adja Gaas ci Angleterre di ko woo ci combat bi. Ah, Jali Jàmme at Madeleine ci Atlanta waa Atlanta ñëpp maa ngi leen di woo ñoom Ibba ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. combat bi maa ngi woo Amérique gépp bàyyiwuma kenn di woo jëwriñ Baye Fall Bas manko ngi koy ziar di ko woo ci combat bi mu ñaanal ma Fall bi. non no ma faal suma doomu nday comprendre di woo waa Amérique gépp bàyyiwuma kenn kenn kenn ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégalu maa ngi woo ñëpp waa 116 ma kenn at Basteur bu mag ba sama rakk ji maa ngi koy woo baax a baax di ziar ñëpp kontaan naa daal ku ma woowul rek maa ngi jégalu directeur kenn du ma moo Ndiaye. Bamba nga ni ñoo faate kan ak kan ñëwal ñëwal <laughs> kaay. <laughs> ay bi combat ay bi combat ay bi làmb Alaye Diop xaas def nga lu rëy bi combat ay bi combat ah xaas yi bi xaas yi bi tëgg na lu rëy xaas yi bi tëgg na lu rëy mbokk yi nga xam ne wax dëgg yàlla lii nii ngeen bëgg rek ngeen bëgg rek <laughs> ngeen bëgg rek moo tax xaas yi bi tëgg làmb ji mbokk yi ah macha allah muy ci diggante Khadim Ndiaye ak Lirou Diane mu nekk komba boo xam ne janvier la jëm nekk làmb joo xam ne dana leen neex mbokk yi Bamba ñoo fàtte. waaw damay gërëm maître El Hadj sama candi sama candidat avocat à la cour avocat international di di ko nuyu maître El Hadj di la wax ni combat bi commencé ngaa dugal sa loxo sax mais yokkaatal waaw di nuyu moo Ndiaye directeur. ak ku ma booleel muy Babacar yónnee na ma ay yére yu bëri ak xaalis yu bëri ci màggal gi ku ñuy wax Babacar ci États-Unis di nuyu tamit beneen Babacar ca Hollande ci Angleterre di nuyu di nuyu tamit Mamboy Diaw président Mamboy Diaw maa ngi président ñëpp la Mamboy Diaw sunu xarit la sunu waay la Mamboy Diaw sunu xarit la sunu waay dimbali ma saytaane nga Mamboy Diaw sunu xarit la voilà. xanaa yow ñëpp saytaane lañ. di nuyu Mamboy Diaw bu baax di ko oo ci combat bi di oo tamit as ndaw borom dukkumaan. di ko oo ci combat bi. na borom sama xarit la ku baax la. Brisili moo booleeg moom sama rakk ci Amérique Brisili moo booleeg Asma du borom document a nga waa kan Brisili mooy boo ko Brisili pàdd muy xalangu ñàkk jom ba bëgg a dee say. mat bëreeg say rak bëreeg say doom bëreeg say sët bëreeg say jarbaat. comme ni comme ni booy comme ni booy ñaa def rek sa rak rek ah déet waaw maa ngi gërëm Amath Sène maa ngi gërëm Gris Bordeaux Modou Lo maa ngi leen di bi ndax woo nan ma te neen ma den ma jàppale ci combat bi. ayca léegi léegi bul dugg foofu. sama doom maa ngi lay woo ci combat xam nga ñoom ñooñu muy wax ñëpp ci guddi gu ba sërgul lañ ne ñoom tey ñoo jàppale seen bopp. Kala Ceec Modou Lo am na lu ko doyee gorom del bi Gris Bordeaux rabaay laa ko tuddee rabaayee eh rabaayee eh rabaayee Eumeu Sène. giñ caa caa caa caa giñ caa caa giri giñ caa caa giri. yaa ngi dégg. di woo sama xarit promoteur Ibrahima Diop. Ibrahima Diop maa ngi koy woo ci combat ko sama xarit la sama waay la yow dimbali ngaa Ibrahima Diop yow fi nga tax xas ko ba naan ma biiram bu rëy boobu keroog yaa taxaw naan biiru Ibrahima Diop dafa rëy. yaa ngi dégg ama seen am na lu ko doyee bu ko gi tafatin yàlla na ko yàlla may ndam billaahi bu ko bu ko ñaanal ndam ah, ah, déet koo faral ci combat boobu ah, may bool bool man du génnuma xeet di man li ma koy wax buma ko gis nga Eumeu Sène Tafatino Gris Bordeaux Modou Lo ñoom ñëpp jàmm laa seq ñu Ama Balde ñoom ñëpp sa waaw ama suma rakk la suma xarit la voilà ama Modou Lo kum faral koo faral doo ko wax de. waaw dama lay doo ko wax de waxal. billahi doo ko wax man dama ne ama na ko yàlla may dem waxal yow doo wax de xam nañ ne <laughs> jur ki cam. saa waay jékku na la de. di o di o. di o léegi jeex na kon léegi jeex na. kenn moo de la Abdoulaye Diop Xaas maa ngi woo Askia Touré. kooku dina ñëw kooku suñu ba pare da nga bàyyi Askia Touré